fàtte nag di bës like bi muy loxo bi loola it dinañu jàppale xabaar yi dañu koy doore ci doomu Sénégal bi la di Cheikh Ahmadou Bamba Dieng moom nag dafa mel ni kat ñoo ngi commencé am mbégte lool ci ak kitéem foofee ci biir Marseille ngir kan mu wutali Nice club yu bëri nag soppoon nañu ko bëggoon ko club bu nga xamante ci ma nga ci Angleterre di Leeds United waaye ñoom dafa mel ni di waa Nice ñoo leen ca dal lool ba sax gone gi di Bamba Dieng moom lañu gën a am yaakaar ne dina dal di fekk ji waa Nice ngir quitté foofu ca biir Olympique de Marseille kon nag dañuy jógee ci Bamba Dieng dal di wutali kili di Carlos Soler moom it ay ma ngi wëy di dagatembe ngir kat signé contrat bu yees tàq club di Paris Saint-Germain waa Paris Saint-Germain it bëgg nañ ci moom ndax kat kili di Carlos Soler moom ci boppam moo dafa bëgg quitté ci club am wutali Paris Saint-Germain ñoom waa Paris nag xëy seen président di Nasser Al-Khelaifi moom it mu ne am na mbégte lool ngir tàggat kii di Carlos Soler waaye nag andi ko fa ca biir Paris mu fekk fa ay joueurs yu mag muy Neymar Senior kii di Kylian Mbappé ak kii di Lionel Messi kookee nag di Carlos Soler moom mu ne dafa am mbégte lool ngir football ak Messi rawatina kii di Neymar ak Kylian Mbappé nag kat bokk nañu ci joueurs mondial yi loole nag léegi lépp yemoon na kat wutali na Paris yëgal nañu ne contrat ba mi ngi ci atum 2027 kon Carlos Soler fekk na Lionel Neymar Senior ak kii di Kylian moom Carlos Soler président am na mbégte ci football ak Carlos Soler tàggat ko foofee moom kii di Drexler nekkoon ci club boobee di Paris Saint-Germain xam ngeen la fa mën dugal bind fa taarix ndax kat ku xam Drexler xam ne la ci biir Paris Saint-Germain waaye nag la ci ndaanaan li xam ngeen nekkoon ca Barcelone du joueur mondial am ku mel ne Neymar di doomu brésilien nekk joueur mondial jóge ca Barcelone am ku mel ni Kylian di doomu France nekk joueur mondial jóge bu France boobee club bi la di AS Monaco doo am ñetti ponkal ba pare di jaay loolu nag moo waral ñu dal di xëcc direct leer xam ne man nga ndaanaan nga mën ngaa dugal waaye nag ku am ñetti ponkal yi bëgguñu beneen jour di ci dooleeku loolu nag moo waral ñu dal di koy jaay Benfica ba nga ba ci Liverpool jógee seen club boobee ngir kat déwén ñoom it dañoo bëgg a wane ful la ci ligue des champions bi ngir bëgguñu ci dugg rek génnaat loole nag moo waral dara ci daal di wutali foofee ca biir Benfica moom ki lay di Naby Fekir moom it ay mbiram ba tey ji dafa mel ni dañoo commencé dégg ne waa Barcelone dafa mel ni ñoo ngi ciy commencé négociation li ko waral moo di kat ñi li di waa Real Betis ñoom it fan lañ ca nar a yem waaye nag moom gu nekk ci dafa bëgg wutali Barcelone te waxtaano nag ma ngay wéy du lool ngir moom gone gi nee na noppi na ngir wutali Barcelone te ñoo waa Barcelone nag dafa mel ni noppi nañu pour waxaat ci ngir gën a seere mbir yi loolu moo waral kaleen di di Xavi Hernandez moom it bëggoon ay jour loolee ma nga wax yëkkati ci ay kàddu loolu nag moo waral boobee ba tey jii moom na bi fekkee nag ngir wutali woon ca Barcelone waaye loole nag mën yem ndax kat ngeen ne mercato ba daal di nay tëj waaye nag déwén nite mën am mu wutali club di Barcelone moom nag ma nga ci Real Betis tax Xavi Hernandez nee ni bëgg na gone gi te gone gi ba ñul Barcelone loole nag moo waral waxtaan wa commencé woon naa sori waaye xam ngeen ne mercato bi gannaaw bu mu tëjee Barcelone mercato yi nga xamante ni da ko bëggoon sottiwul yëpp da koy dal di mujjee tëj ngir kat loolee sottiwul ba tey jii xabaar yi moom jour Barcelone di dest xam ngeen ne latéral bu Fernandes ak Joan Laporta muy président ba ñu wax ne ko bëgg jaay ay club club yu bëri nag doon nañ ci dugg ba yàq na demee nag bëggoon nañu ko fi Barcelone lànk ne doo ko ko jaay loolee nag moo waral AC Milan dégg ko dal ne waa Barcelone gone gii de ndaanaan la latéral bu confiant la te li ngeen di laaj ci gone gi mën naa kaa joxe te it ñeme te nangu naa kaa jënd moom Kikili na bu nu sukkandiku Ford Mercato sukkandiku ci Mundo Deportivo officiel na ca AC Milan déwén muy atum 2022 jàpp 2023 foofee ci biir AC Milan falay football sol seen moyen tey jël lañu ko officialisé kon nag AC Milan nañu ngir ñoom Ligue des bi ñu ñëw ren nee nañu bëgguñu ci wuute ndax ni ñu jëlee championnat Italie bi dañu bëgg remporter a renforcer ngir wutali ki di deste moom ki nga xamante ci ne moo di AS Kutu Barcelone bi li nag kat yàggu fa waaye nag bind na fa taarix waaye loolee nag dafa taxoon waa Barcelone daal di waxoon ne dañoo bëgg tàqali ko ak kii di Ronald Koeman moo doon yëkkati nag man te man yi ma doon laal dafa ni Xavi Hernandez ba mu ko ñëwee da koo continuer waaye nag dëkkalu ko mu doon dal di ne Barcelone gis na ci ak yëkkatiku ak jug goo xamante ci ni ñu ngi waaj waa Barcelone te ñoomin nag am naa mbégte ci ñoom ne déwén ak jàmm dinañu jël ay trophée yu bëri yooye nag mu nekk kàddu yu rafet yoo xamante ci nii moom kili di Ronald Koeman jógee woon ca Barcelone atum 2020 jàpp 2021 loolu nag moom la yëkkati ci kàddu dal ne ki leen di sa Fernandes ndaanaan la président bi it ndaanaan ñoom ñaar boole nañu teyit ànd nañu moom nag nee na gis na histoire bu rëy ca moom ki la nag di Cristiano Ronaldo di doomu portugais nekk ci club bi la di Manchester United ci na Angleterre xam ngeen ne ay problème ci boppam da ko commencé woon dugg ak club bi rawatina kaa leen di tàggati Erik ten Hag kite woon ci Essex yi wutali woon Manchester United ñëw fekk fay problème waaye nag problème yi xam ngeen ne ma ngay commencé réglé wu ndax ñoom waa Manchester United tey ji doon ñu max ak ñeneen waa Leicester City ñoo ko door benn bal ci dara loolu nag moo waral kii di Cristiano Ronaldo ay mbiram nag ma ngay xaw a taga temme waaye nag xam ngeen ne mercato bi dañ na waaye nag ñoom nee nañu déwén bu dee mercato bi tijjiwaan na lëf suñ sa mënta am maanaam diggante ndaw suñu ca mën a nañu caa daal di jël Cristiano Ronaldo te waxtaanu nag ma ngay commencé sori lool ndax xam ngeen ne mercato bi mën nañu wala ay heure yu ndaw daal ngir mu tëj kenn dootul mën a jënd mbalum njaay am joueur wala ala joueur wala jënd joueur loolee day daal di tëje waa UEFA wala ñi nga xamante ci nii ñoo ŋànk wàllum waa taas ñëpp dañu koy daal di tëj moom kii di Bernardo Silva gannaaw bi nga xamante ci ni mercato bi mën nañu ne dina tëj wala ay fan ci kanam rek mën naa tëj xam ngeen ne Barcelone dañu ko bëggoon te gone gi ba tey tey jii may wax ak yéen dàqul kiiti ca Manchester City saison bu bëri di ñëw wutali Barcelone ndax moom gone gi club boobee fa la bëgg a dem te waa club ba it bëgg nañ ko muy Barcelone loole nag moo waral waxtaan wa ma ngay wéy di sori moom kii la di Bernardo Silva waaye nag ay mbiram jàpp nañu ne déwén moom bu dee mercato bi tijjiwaat na club bu ne am droit jënd club bu ne am droit jaay moom kii la di Bernardo Silva mën nañu koo dal di gis mu def foofee ca biir Barcelone ndax Xavi Hernandez ba tey ji nee na daqundu mel ne mercato bi tijji atum 2023 waaye jàpp 2020 ñu mën a jënd Bernardo Silva renforcer militaire ne Barcelone ba déwén sax fekk Barcelone xool ba xam jël nañu trophée wala jëluñu jël nañ trophée ñu xam ne Milien ba baax bu dee jëluñu ko rete ñu renforcer la ñu bëgg waaye moom Xavi Hernandez it muy wéy di tàggat Barcelone te bu dee nee na di toog ca Barcelone moom président ba yaatal ko dina ko jënd moom doomu Sénégal bi lii di Ismaïla Sarr xam ngeen ne ma nga ca deuxième division bu Angleterre nekk ca club bi la di Watford ay club bëggoonu ko Aston wax di wax di wax di wax di lintu lintu ba a passé visite médicale maanaam biir Aston Villa ngir ñu xool yaram wa bu lépp yembe ñu signal ko contrat loole nag gone gi demoon ba ko waaje def waa Aston Villa génnaat ci ñoom nag ñu gone gi ndaanaan la mën naa dugal mën na la may def waaye nag mbir yi dañu ci raxasu ba set wecc bëggatuñu ci dara gone gi nag ñi ngi commencé di contacter ñi di waa Watford ngir bëgg doomu Sénégal bi leen Ismaïla Sarr yi ñëw yëpp nag offre ba ñu andi xaw na takku waaye nag ñu ci bëri ñoom bëgg aal ñu aal leen gone gi maanaam waa Watford jël a ci ligue des champions bi ndax kan ñoom nee nañu loola moo du ñu mës doomu Sénégal bi ñu koy aale ndax naanaan la mën na dugal loola nag danañu ananas ndax coupe du monde ba bu ñu dem ca Qatar mën ko yóbbaale ba tey ji xabaar yi dañu ñëw ci kii di Frenkie nii mi ngi ci club bi la di Barcelone ay club bëggoon ko Bayern duggoon ci génnaat ci Manchester United dugg ci lànk ci bañ ci génn Manchester dugg ci amu ci dossier bu baax génnaat ci club yu bëri dugg ci mënuñ ci am club bu baax génnaat ci ñeneen di wàccal si ñoom it dugg ci Barcelone nangu leen koo jaay ñu génnaat ci moom nag ay mbiram Barcelone dafa mel ni ñoom dalee nañuy lancer message moom ki la di Joan Laporta ak président ba Mundo Deportivo Sport ñëpp dëggal nañu ko Super foo wax nañu ne ki la di Frenkie de day resta ca Barcelone kon nag catalan yi nanu bëgg te xam ne moom doomu hollandais doomu Pays-Bas bi li di Frenkie de du quitté benn yoon foofee ca biir Barcelone li ko waral moo di ñu waa Barcelone nee nañu lëlalatun benn club basang ngir nga mën a am lancé ci kili di Frenkie de Jong ngir dal koy jënd ndax ñoom nee nañu dañu koy téye duñu ko jaay benn yoon ndax milieu de terrain bu viable la te it na la muy def loolu rek moo waral duñu ko jaay tey duñu ko jaay ëllëg amul mercato bi tëj na amul tëj na lànk nañu ne duñu ko jaay ci kii sax la ñuy ndar keppee xibaar yi moom ki nga xamante ne moo di Pierre-Emerick nag moom ma nga ca Barcelone te ñeneen di waa Chelsea bëggoonu ko moom sax xam ngeen fan yi ay bandi dañoo demoon këram tooñoon ko ba nanoon koo rey ne ko boo waxee ñu rey la loola nag moo war jamono ji dañu ko tëj ab hôtel ngir bañ mu am benn problème waaye nag lépp it lu ci mën a sukkandiku ci xabaar danu ñu leen ko dëgtal waaye nag moom awaa millions yi nga xam ngeen ne Chelsea duggoon nañu ci ca ñoom nee nañu ndam ñu ci bëgg te moom am na accord verbal maanaam kàddu jug na diggante Barcelone ak waa Chelsea maanaam Barcelone ak Chelsea juboo nañ kili di Aubameyang ak Chelsea juboo nañ waaye nag lépp dina yemb su mercato ba tijjee ngir gone gi mën a wutali war championnat Angleterre gannaaw ba mu quitté Arsenal kon nag dañu ngi leen jox dig daje ba ci kanam tuuti ak beneen vidéo incha allah bu leen fàtte nag abonné te bës cloche de bi ngir kat loolee dina waral vidéo bu ñëw yeneen doon ki koy njëkk a jot bu leen fàtte ki di bës laa yëkk bi loxo bi ci wet gi ndax kat loolee dina yokk audience vidéo bi vidéo bi gën a développé bi gën yokk ñu dem jëf